bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum mbokki amateur salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa diaspora du nuyu ñëpp ah, di ñaanal kilifa diine yi yal nañu ko yàgg te wér lool di ñaanal. Euh, kilifa aada yeeg kilifa diine yëpp di ñaan waa CNG les amateurs de la diaspora euh, les leaders en activité les anciens leaders yëpp ñu ngi ñu di ziar ñep di ñaanal ñep euh, di jéglu bu baax nak franchement retard wu émission bi tay moy le 22 mai 2023 22 mai 2023 dimanche moo nekkoon dembu le 21 mai dimanche nak Fathia production mo woté won woté Grand yof tegaloon bari 1 million de francs CFA euh, ci un million bobo animation ba euh, parlo la on bo fatigue anim euh, ci tëgg ma ci wéy ma Adama Dialli mu nekk franchement lamb ju neex comme niñ ko waxe rek sen émission Njoktoor la sen émission Njoktoor bi moy vingt e numéro bi vingt neuf vingt numéro ci Mbine TV avec Ndiak Albert toujours au micro demb Fadia production moo toon Fadia production nak ben ben association la buy dox ci lamb wali ku tudd Wally moko ko won franchement mu nekkoon demb nak lamb ju neex bu ala dawme euh, au début, nous avons 45 lutteurs, mais nous avons excédé 45 litres, 2 lutteurs qui sont en finale. Nous avons Cheikh Diagne Boudjahao et euh, Bass Bounjongolor. Au finish, nak, franchement, Bass Momoudje dans Cheikh Diagne, qui euh, est le qui est le Nous félicitons Boubar et bas qui encourage aussi Cheikh Diagne, il n'a pas démérité l'olmoy espoir. C'est la loi du sport, c'est à gagner ou bien à perdre. Vous wuti toujours day sóoraale ne mën nga am wala mën nga ñàkk loolu euh, di encourager bu baax euh, euh, Cheikh Diagne di féliciter Bass bu njongoloor bu baax di féliciter encore franchement innovation bi nga xamantene mom la Fathia production def muy wàlli parce que làmb ji gis na franchement amoon na sponsor du moins amoon na parrain parrain bi nga xamantene ne na en masse ñew ak une très forte délégation li muy joxe xamuñu ko mais franchement délégation bi daal ben délégation bu forte la indi won làmb ji bu am culture and ak Simba Gaynde yépp franchement muy innovation parce que suma jiw moom yaakaar ne c'est la deuxième fois ñuy gis Simba Gaynde ci ci euh, arène Adrien Senghor ren ci saison bi 2022 2023 bi di félicité baax le promoteur du jour ah di encourager, encouragé di ko la fi nga teg sa tànk foofu la euh, j'espère que suma juumul xaw ma saison début ou non mais lam daal en tout cas neexoon na lool franchement neexoon naan mo innovation seulement euh, li ñu bëgg wax tuuti rek mooy retard bi nga xamante ne moom la parrain bi def am avant muy wane li mu indi mais loolu moom franchement damay xaw a organisation bi dama leen di xaw a ŋaññi foofu quoi parce que du ŋaññi sax mais eh, xam nga fës lu mu gaaw gaaw gaaw aussi il faut nga ne ani pour mu meuna gëna gën gaaw mais eh, bo amé parrain mu ñëw waroo xaar bi lamb ci des final ngay soga présenter sa parrain non non franchement parce que franchement boko ko rek day tax boy di indi di yuuxu di sani wala di di n'importe quoi daal te franchement lolu eh, yaakaar naa ne mëna na ñàkk parrain bi normalement bi demee ba nga xamante ne quart de finale war na taxaw au moins wala sinon avant les demi-finales parrain bi dafa wara ñëw woné limuy woné parce que bu ko deful rek euh, final monul mënul taxaw paré di woné loolu moom franchement loolu nañ ko éviter les promoteurs nañu éviter lolu les organisateurs nañu moytu lolu wa final parce que amateur bi dugg ci ci lamb dafa dag ticket pour seetaan surtout nak la finale parce que finale bi eh, mom gën intéressé certains ñi ni am na xam ne ñu seetaan finale mais wul wa mais dag sa bi 3000 ñëw eh, parrain taxaw sa kanam public bobu taxaw sa kanam be mëno gis franchement loolu eh, mom nañ ko moytu quoi du wax ne baxul de mais nañ ko moytu wa parrain bi na tel di woné limu indi avant la finale

waaw moo ci def intervention ba arbitre mujj a euh, arrêté arrêté final bi ba euh, parrain bi wane ba pare loolu moom franchement euh, du Fathia Production kese la concerné mais yeneen promoteur nga xamante aussi seen journée ngi ci ginnaaw ngeen sóoraale loolu parce que loolu day tax booy yuuxu day tax booy sànni te même pane bu ñëw aussi warul jël temps bu gudd waaw warul jël temps bu parce que bu le temps bu gudd aussi day tax boy di yuuxu te boy di yuuxu c'est franchement ñu leen di wax né eh, lolu moy sponsor bu de simple eh, les et eh, promoteur bu def le tout pour am parrain bu ñëwee ben 10 minutes wala ben 15 minutes bu ngeen koy accordel ah, mu waxtaan ak public bi franchement lolu yaakaar na né wañul dara lolu c'est à tolérer waaw lolu franchement c'est à tolérer amateur nañu xol bu baax côté bobu quoi nañu soralé né sponsor bu bëri sample moy parrain. te bu ngeen gisee ren saison yi fi saison bi yëpp ñi ci am sponsor bariwuñu ñi ci am parrain aussi bariwuñu donc kon loolu franchement war nañ ko supporter war nañ ko mën a digérer war nañ ko mun a muñal aussi promoteur bi waaw franchement war nañ ko mën a muñal promoteur bi bu baax euh, di ñëw nag ci euh, mbëre plage bi zoom waaye ñu des waat ñu war leen ci euh, ben résultat yi nga xamante ne moom la ñuy jëlee Tunisie ci beach wrestling bi ak lutte olympique bi parce que ñaari forme de lutte la woon gars yi daje fa ñoom ordinateur ñoom Sidi Sembène eh, ñoom Anta Samb Sylvain jaata ak eh, eh, ñëpp ah, bari nañ ci woon dix personnes la Sénégal yóbboon ci ñaari forme de lutte bi ñu ngi ci jëlee presque en tout dix médailles dix médailles nag ci biir dix médailles bi lutte olympique yaakaar naa ne huit lutte bichu wrestling bi huit médailles lañ ci am ci biir huit médailles boobu trois en or la ñetti or yi ordinateur mu am benn or ak seeni Sembène ak Yaamu Ndong ñoo jël ñetti médailles or bi ñetti médailles argent bi Ngor Ñaax Safiatou Goudiaby ak euh, Nahami Diatta Nahami Samb euh, ñett ñooñu ñu jël médaille médaille de médaille argent bi médaille de bronze bi Mamadou Diouf la ak Anta Samb ñoo am ñaari médaille de bronze ñëwee nag ci lutte olympique bi lutte olympique bi euh, ñaari médaille lañ ci am muy ñaari médaille de bronze muy Anta Samb ak Sylvain ak Sylvain ñu am ñaari médaille mais selon nos sources nee na délégation bi mu ngi war a ñëw tey ci une heure du matin Euh, tay une heure de matin franchement loolu nak franchement euh, war nañ ci taxaw sedd tuuti quoi wa war nañ ci taxaw tout li parce que euh, une heure du matin mbër yi bu fi équipe nationale Sénégal dem Tunisie té ñaari forme de lutte ñu war leen teew une heure du matin kan mo fay nek moment euh bëgg na nak franchement xamna né sama baat tuuti na ci lool mais gëdd bi nga xamanté ne moom lañ ñu jox bëri simple bi bëri door bi nañ ko jox bëri simple bi nañ ko jox aussi euh, bi jox football bi askan nañ ko jox nañ ko jox euh, équipe nationale parce que équipe nationale lañ wax équipe nationale de football ak équipe nationale de bëri yépp benn la war a parce que Sénégal la ñuy représenté drapeau Sénégal la ñu yóbbu donc une heure de matin moom franchement su fekkee information fiable na euh, je trouve que c'est pas normal parce que dana am ñoo xamante dañu bëgg a teertu ji te du mën a ñëw heure boobu franchement foofu moom waaw damay damay damay damay wax ne c'est pas c'est pas normal franchement du yoon waaw mais <laughs> yàlla baax na euh, ñu avons leen tout ci annonce lamb annonce lamb MGC euh, ñooy le 3 juin à Fatik avec une mise 72 euh, heures Hein? la ñuy wax sargal euh, le 3 juin. Fans Club gagne Fama le du 12 au 15 juin à Betenti. benn nag race bi 150 000 poussière bi benn la ak 300 000 et poids léger que 500 000 yaakaar naa est ce que am na poids lourd je ne pense pas parce que gisuma ko ci Mbayang Loum la ak Momo du 2 au 6 juin ñoo joor du 2 au 6 juin ëppajël euh, bi nee na ñaari nag la ñaari nag rawgadu bi nekk 3 3 bœuf tànk bi 400000 lour bi nekk 500000 à Niodior Mor Ngom ñoo fay ak dimanche 28 dimanche 28 ak benn destination la terrain gaal et kan moo xewle Cang Chang production Cang Chang production boo ko déggee kooku mooy Mame Diarra Mame Diarra Cang 3 millions Maodo moo fay nekk ak Mbayang Loum am ay parrain invité d'honneur am aussi une triple bu ngand yoo xam ne ngi ngi fay xaar amateurs yi Karang du 31 premier juin lourd bi 1 million la léger bi 500 000 Karang Mor Ngom euh, ONG Ndefleng fait son retour parce que géej na ci làmb ji mais fait retour le 27 mai lay donné à Fatik, Pablo ak Ndeye Fatou mais waxuñu mise bi. Euh, Diop production du 31 au 1er juin à Karang avec une mise de 1 euh, million 500 Mor Ngom Mbayangloum ADD ADD hein, Darou du 26 au 29 mai avec une mise de 16 bœufs et 200 000 Diofior donc il faut que vous ko noté calendrier 16 bœufs. 16 eh, ba fukki ak juróom ak ñeen fukki lolu du eh, dimanche 28 mai bingan production à avec une mise de 1 million de francs CFA eh, nabo production le 4 juin au terrain Galgui avec une mise de 5 millions Ndoubab à Joal du 8 au 10 juin une mise de 3 bœufs une mise de 2 chevaux avec 3 millions Ndoubab Joal la ñet millions la ñu teg ak ñaari fas dimanche 25 juin 25 juin les Babou au Grand 1 million Amalda le 2 juillet avec une mise de 1 million. Yacinthe Sar le 9 juillet avec une mise de 1 million. Amatnian le 23 juillet avec une mise de 1 million. Association Arène Adrien Senghor avons une de gi le 30 juillet avec une mise de 1 euh, million de francs CFA Nous nous nekkoon seen annonce du jour di wax gis abonné les téléspectateurs gis nañu abonné euh, eh, mais nous ngi dit, di ñaan avons fait nga ñoo ñuy euh, yokk abonné bi pour ñu abonné gul di aimé di partagé ñuy abonné ba pare mën nañu di aimé di partagé di liké parce que loolu aussi bokk na ci li nga xamante ne neexal liggéey bi di nuyu ñëpp di seet ñëpp di jégalu di baalu ñëpp ak di ñaanal ñëpp jam Sénégal yal na fi yàlla def jàmm Sénégal yal na fi yàlla def jam encore une fois Sénégal yal na fi yàlla def jàmm yal na yàlla tapp xol yi yàlla leeral mbili te yokk sutura beeg euh, xewal gi yëpp incha allah euh, jërë nga